maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Faty. naka suba si. sant alhamdulilah suba saa ngi nii mbaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla. alhamdulilah sañ sëkkane xanaa sa yëre korite nga sant. <laughs> sa yëre korite ñoom Chérif dañoo redoubler. <laughs> dégg <laughs> mais yow tam sañse nga aussi. <laughs> waaw man miin na saabu bi. aja nuyul téléspectateur yi ñu dem ci yéene kaay. maa ngi nuyu téléspectateur yi nii sama naataay ngi ma bokkal plateau bi. Mm. aywa ñu door ak l' aywa l' à la une mu mel ne Idi coow li jeexagul de. coow li jeexagul pënd mi wéroygul ba tey ak itam kàddu yi nga xam ne biral na ko ci la jamono itam opposition bi euh, ku ci nekk ak itam na nga gisee ci kàddu yi nga xam ne Idrissa Seck yëkkati na ko ak itam jamono yi nag taxawaay wi nga xam ne am na ko Ousmane Sonko àdduna ci ak nga xam ne euh, moom moo di docteur Abdourahmane Diouf fa idi itam ak itam posture wi nga xam ne euh, moom la taxawee ci yile jamono ci yile jamono itam keneen koo xamante ni jokkoo na ak suñu ay naataango yu l'observateur bokk na ci Awa Gaye animatrice fii la ci TFM moom la mu xam ne itam bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne dund na ko rawatina euh, ci li nga xam ne itam moom moo di euh, néegu sëyam lenn ci loo xamante ni euh, mënees na koo jukki bokk na ci rek ginnaaw bi mu wannee lor ba am ci lu tolloog juróom ñaari weer ak itam bunduxataal wala boog dóor yi nga xam ne borom këram mi ngi ko ko dóor ba tax itam mu daal di ñàkkoon ëmb boobee nga xam ne ëmboon na ko ñu ñëw itam ci lenn ci loo xamante ni njiit bu réew bu Sénégal di na koy amal jëm ci gouvernement bu Sénégal bokk na itam ci rek daal di remplacer ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck ci euh, bopp ba nga xam ne euh, moom la nekkoon lu li jox nañ ko ki nga xam ne euh, moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo un choix en question lu li mel rek la daal di biral lépp lu soxal itam journée mondiale bu xeex lépp lu ñeel wàllu sibiru réew bu Sénégal itam ci la jamono jéego yi nga xam ne mi ngi ko koy amal ngi rek daal di moy wàll wi ñu wax itam ci attentat à la pudeur la mariée le beau et le harcèlement sexuel lu ni mi ngi ci li nga xam ne nag page huit bu l'observateur ginnaaw page huit page cinq itam euh, daal nay addu ca kii dugg euh, Tramadol jàppal na ni Fatick xeetub sinébar la woo xamante ni itam ñi nga xam ne ñoom ñooy gas foofe nag ci la jamono ñu ngi koy rek euh, daal di tux bu baax a baax ndax itam cocaïne bile cher wi nga xam ne daal dina koy cher ginnaaw l'observateur. ñu dem ci enquête. jàmmarloo yi nga xam ne itam moom moo am ca diwaan bu Ngor boobaak léegi ci la jamono donte lépp lu soxal wàllu jàmm dikkaat na ci bu baax baax. baax ki nga xam ne euh, moom moo di maire bi indi na ay leeral bu baax a baax euh, moom Maguèye wax na itam li nga xam ne euh, moom la ñu bëgg def ci espace wi nga xam ne moom moo jur coow li la tax itam ñu bëgg fa taxawal aw gendarmerie itam bokk na rek ci gendarmerie bi fi mu nekk ci la jamono day rek daal di inondé maanaam ndoxum taw mi da leen di sonal loo tax ñu jël boobu lee dogal waaye itam taxawal aw lycée mm-hmm. lépp lu ñeel jàng meeg jàngale mi bokk na ci seen ay bëgg politique réaménagement gouvernemental la xëy fësal Macky à euh, la carte en main lu ni mel mu ngi ci xët bu njëkk yi moom njiit mu réew mi itam tàllal na loxo jëm ci li nga xam ne moom moo di wàll wi nataal bi le euh, ci page cinq bu le quotidien le quotidien itam euh, dal di xëy fësal ci page deux lenn ci loo xamante ni itam jur na aw lëñbët xel ci li nga xam ne moom moo di dande maayo mu ñeel fukk ak juróom ñett ci ay hommes armés yoo xamante ni njort nañ ne dugg nañ fii ci réew bu Sénégal ñàkkul ne ay defkatu ñaawteef lañ. aywa le soleil xëyee ak président Macky ak élimaani jëwriñam. Mhm. Amadou Ba. ak Amadou Ba ci la jamono itam li nga xam ne euh, jël na ko dénk ko ko ginnaaw itam yenn ci ay démission yoo xamante ni euh, nemmeeku nañ ko euh, fii ci réew bu Sénégal ñeel Abdoulaye Daouda Diallo mi remplacé ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck le premier ministre Amadou Ba itam daal di boole yenn ci ay ministères yu wuute lu ci mel ni sport ak itam li nga ne moom moo di ñu dem ci euh, libération moom mu génne feneen Mhm. libération génn na feneen ak itam société wile euh, di euh, Getran xam nga ne itam da yëngu ci wàllu tabax ak yeneen yu ñu xeetoo ginnaaw coow li nga xam ne am na ko ak itam ki nga xam ne moom moo di Ibou Fall ñu gën koo xam euh, ci Pape Fall ami boutique ci immeuble bu huit étages woo xamante ni itam amaloon nañu ko ca plateau immeuble boobee nag moom ki di Pape la mu xamle moon moo di anam ñu ko amalee baaxul benn yoon tax na itam société bi faat ku mooywul mënees naa tëj ndax itam koppar yi nga xam ne euh, la ñu leen laaj ginnaaw itam layoom ak euh, Ibou Fall euh, jéggi na dayo lool ginnaaw libération ñu wutali beneen ab yéenekaay muy la tribune mi xëy ak woy politique yi. rejeté par l'opposition lu ni mel la rek daal di xëy fësal daanaka moom Idrissa Seck daal di ñàkk lépp ginnaaw itam dogal woo xamante ni jël na ko dëggal boppam ngir rek wutali chaise wa nga xam ne moom moo nekk ca palais élection présidentielle atum 2024. ñu ñëw ci Walf Quotidien mi xëy ak. président Macky Sall. démission yi ba tey la rek daal di xëy fësal euh, Benno la marche en arrière page 4 euh, bu euh, rek Walf Quotidien moom moo gisee lu ni mel keneen koo xamante ni itam mel na ni ku dolli ci xar mi karaw ci lépp lu soxal 45 milliards yi ñu njort ne dañ ko rek daal di sóop ci lépp lu ñeel wàllu ngànnaay fii ci réew bu Sénégal moom Aliou Ndoye ci la jamono itam indi na aw lënt-lënt ci rek xelub askan wi lépp lu soxal itam kap ci la jamono ma ngay may xam ne rek ne dina amal beneen plan d'action mu euh, soxal ñu daal di bàyyi ki nga xam ne euh, moom moo di Pape Ndiaye suñu naataango wi nga xam ne moom moo nekk ca wal fajri euh, soxna Faty ca jamono ji mu caabi feete ko gannaaw ñu ñëw ci les échos Abdoulaye Daouda Diallo mi jiite léegi conseil économique social environnemental. nouvel homme fort la ko rek daal di ci jamono itam lépp lu ñeel wàllu commande bi moom Abdoulaye Daouda Diallo moom moo ko rek daal di yor ca économique social ak itam environnemental. Sall wuutu ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck pourvoi en cassation sur l'instruction euh, de l'affaire Sweet Beauté xam nga ne euh, Fati pënd mi wureegul ba tey la Cour suprême euh, déboute Sonko lu nu mel la rek daal di xëy fësal mu ngi ci li nga xam ne moom moo di page trois bu Les Échos jógee ci les échos dem ci bés bi le jour ak président Macky Sall ak Balba. ci la jamono itam fu ko neex lay séddalee faat yi mu ñeel lépp lu soxal itam taxawaay ñenn ci ñoo xamante ni euh, seq nañu langue politique bi war a am ci li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, bile gouvernement. ñu dem ci laas moom it ak Idrissa Seck. Idrissa Seck mi ne rek euh, dina wax ne euh, ki nga xam ne moom moo di wéy jurug njiit bu réew mi ne ko euh, doomam mi ngi liggéey ci yile jamono ñeel réew bu Sénégal moom idi moom moo yëkkati yooyu la kàddu faat moom xëy Sonko. Sonko tontu ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck Idrissa Seck itam ci la jamono xam le rek ne dafa taxaw taxawaayu ki nga xam ne moom moo jiitu ci lu ñeel wàllu opposition bi moom Ousmane Sonko itam yenn ci ay kàddu yoo xamante ni biral na ko ne ca Côte d'Ivoire naam lépp itam ci jur gi la bokk dañuy àndandoo di dox waaye itam ku ci dox ku nekk daañu xam li nga xam ne nag moom moo di sa njëkk ak itam fan nga mënee bu ñu wàccee ci terrain bi moom Ousmane Sonko nee na dina ko wan boppam bu baax a baax ci lu soxal langu politique bi ak itam fu mu baatare mu daal di euh, coupe moom Ousmane Sonko. nee na xëccoowul euh, chef de l'opposition. c'est cela mhm. ñu dem ci source A ak Moundiaye Cissé. Moundiaye Cissé itam dikkaat na ci lépp lu euh, soxal itam refus de faire partie du F24 maanaam lank yi itam ak itam éligibilité bu Ousmane Sonko. Sonko Karim Wade Khalifa Ababacar Sall appel au dialogue wi nga xam ne euh, moom jiit bu réew bu Sénégal daal na koy addu moom euh, Moundiaye euh, Cissé secretaire général wala bokk directeur exécutif bu trois d daal na dikkaat faram lu ni mel lu ci nekk itam mu daal di ci addu ak itam fan la ñu war a jaar ba rek lenn ci loo xamante ni xët wu njëkk wile bind na ko mu daal di sotti. ñu dem ci euh, le témoin quotidien ak euh, président Macky Sall. président Macky Sall réajuste et continue mu mel ni tam joyanti woo xamante ni def na ko ci gouvernement bu euh, Sénégal ak itam yoon wi nga xam ne moom la war a jaar ngir li des ci li nga xam ne moom moo di mandat bi. Sud Quotidien xëyee ak président Macky Sall ak waa këram ak Idrissa Seck. maanaam seen ak ànd daal dinay rek tas moom ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck ak njiit bu réew bu Sénégal Abdoulaye koy euh, wuutu ci euh, li nga xam ne euh, moom moo di fa mu newoon Sud Quotidien dikkaat na ci. ñu jeexal euh, tàggat yaram record ak Koulibaly ak Koulibaly ak Juventus yi nga xam ne boobaak léegi euh, mi ngi rek euh, di ko dagaan ngir gën a renforcer lépp lu ñeel wàllu défense am mu mel ni itam tàllaat nañu ko loxo nañu ko defee woon at wi nga xam ne nag moom lañu weesu ñu ñëw itam ci li nga xam ne moom moo di Coupe du Sénégal seizième du finale jàppale Dakar Sacré-Cœur Pikine en attraction mu mel ni itam jamono Fatick défi GF lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom di ci euh, page 4 euh, bu euh, l'observateur mu mel ni itam bu record faat yi basketball itam dikkaat nañu ci bu baax a baax ak itam Makhtar yi wi nga xam ne daal dina yëkkati ay kàddu di xam ne rek ne lépp ci bal bi mënees naa ne maye lu ne ci wàllu contrat ak yeneen yu ni xeetoo moom mi ngi nekk ci club bu ñu naan Portugal ñu àddu itam ci wàllu làmb ak itam lenn ci loo xamante ni itam dikkaat nañu ci ci open de presse bi mu doon amal ce Lac Rose qui Euh, euh, fera douter ay kàddu la yoo xamante ni euh, Tafa Gueye ou Kati Diop n'y changera rien lu ni mel la rek daal di xëy fësal ak itam Ligue 1 ca France mu mel ni tam lenn ci loo xamante ni dikkaat nañu ci ak Bamba Dieng wi nga xam ne daal nañuy xëy fësal li nga xam ne nag moom moo di nataalam Bamba Dieng et l'ombre de terrain mu fii lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 5 bu record. aywa ñu dem ci stade moom Habib Diallo la wane. Habib Diallo ak itam lenn xamante ni itam duo la diggante Habib Diallo ak itam ki nga xam ne nag moom moo di euh, euh, Habib euh, Diarra seen duo la rek daal di àddu ci li nga xam ne nag moom moo di page 6 dëkk bu ñu naan Strasbourg la ñu rek daal di xëy fësal ci wàllu yi maanaam ñaancoo itam daal nañuy fësal nataalam ak ci lee nga xam ne ci la jamono moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram ngi rek mu daal di koy jiite ki nga xam ne moom moo di Elimani Jëwriñ aywa ñu dem ci sunu làmb daan nañ ko ñaari yoon Balla Gaye 2 xam nga ne itam dafa war a laale ak ki nga xam ne nag moom moo di euh, Eumeu seen moom Eumeu Sène daal di koy daan ñaari yoon ci lay jamono itam lépp lu soxal wàllu physique bu Balla gay itam daal nay teey xel bu baax a baax Balla Gaye 2 en danger face à Eumeu Sène lu ni mel xaatimee nañu ko en rouge ngir daal di fësal ne Balla gay fi mu taxawee ci la jamono mënees na cee indi ay rek jiixi jaaxa ci wàll pàcc wu njëkk li a fës ci li yéen kaay yi xëy fësal la la ñuy waxtaanee Fati. ñu dem ci conseil économique social environnemental mu nga taxaw l'observateur. merci beaucoup Cheikh Bouya Ngoné